asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk Sénégal mbokki àdduna bu ngeen gisee nag sunu vidéo xëy na ni ñu ko waxee ak ni ñu ko déggee moo waral rek ñu ne nañ def vidéo pour leeralal waaye ñi ngi waajal benn conférence presse boo xamante ne dafa am lu baree baree baree lu luñ ci war a wax luñ ci war a leeral fii ak ay ñetti fan yu néew rek incha allah rabbi mu jëm ci kàddu yi li am mbokk wax wax ne Serigne Mountakha moo ko wax Ousmane Sonko. may jël Sénégal yëpp seede di jël àdduna yëpp seede di jël diaspora yëpp seede di leen waxal ne leen kàddu yooyu ñu wax ni ne Serigne Mountakha moo ko wax kàddu yooyu kàddu yu fen la kàddu yu soos la kàddu yu tuuma la Serigne Mountakha boo amee lu muy wax am na porte parole la bu koy wax muy Serigne Bass Abdou Khadir bu bëggee wax dara Ousmane Sonko dina ko woo ba Ousmane Sonko ñëw mu waxal ko la mu koy waxal boppam ndax ku nekk xam na ne Ousmane Sonko ku jox cër Touba la. ku jox war ma sëriñ Muntaxa ba loolu moo waral euh, ay discours yu baree baree baree bari bu demee Touba du fa sax nangoo jël kàddu di fa wax yenn yenn discours yi parce que jox gim jox cër Touba kon bu leen nangu xeetu wax yi ñu leen di diaboliser di diaboliser Ousmane Sonko ak Touba loolu mënta nekk Ousmane Sonko ñu koy bëgg bëgg nañ ko ñu koy jàpp jàpp nañ ko bu yokkuwul amul dara lu ciy wàññeeku kon nag nañu noppal seen bopp. ci seen méthode bi ñu jël muy bëgg a diaboliser bëgg a tuumalaate bëgg xaste loolu nañ ko jëmale feneen mais pas ci Ousmane Sonko ak sëriñ bi sëriñ Mountakha dañ ko war a jox cër dañ ko war a wormaal dañ ko war a wekk sëriñ Mountakha nekkul fi Samba nekkul fi ma demba ñépp la fi nekkal képp kuy wax asadu an laa ilaaha illallaah rek sëriñ Mountakha yow la yow la fi nekkal kon nag nañu bàyyi sëriñ bi ñu ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax sëriñ bi njaaxaanaay rek moom lay tëddee te moom tamit lay tëddee kon sëriñ bi buñ buñ ko féetalee fenn bu ñu féetalee ci daa faral kii wala dafa contre kii sëriñ bi amul ku muy contre sëriñ bi amul ku faral kon nag maa ngi leen defloo attention ne lu suñ borom pare kenn mënu ci dara Ousmane Sonko defarub suñ borom la kon nañu nangu ndogalub yàlla bi ci des mooy. Euh, man à chaque fois damay wax ne Ousmane Sonko moo gën a nekk murit gën a nekk taalibe ñoom ki nga xamante ne mooy makki sàll mi leen di yebal wala mi leen di waxloo ñuy wax ndax tey Ousmane Sonko kenn mës sa dégg lu ko sëriñ bi sant mu bañ te yaakaar naa jekkoo na jekkoo boo xamante ne tey bu du woon ak mooma kon yaakaar naa réew mi kon maanaam leneen la ñuy wax kon nañ bàyyi seen caaxaan yi ñuy def. nañ bàyyi seen tàppale yu ñuy def incha allah rabbi nag am na loo xamante ne dina ko gën a leeral laat ci kanam incha allah ñi ngi leen wax daal leen kàddu yooyu ñu dégg am mbokk wax ko ñu ne sëñ moo taxaa ko wax kàddu yooyu kàddu yu fen la kàddu yu tuuma la kàddu yu sos la kon ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah